Sunugal 24 point net soyez le premier à être informé sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à diggante Laye ak ki nga xamante ne si moom moo di ñàkk jariñ Laye roog énergie ñàkk jariñ mu caaro doomu caaro bi. drapeau ay dem mbuuj nuy bëri waaye ñoom ñaar ñëpp nag ñu ngi ci forme yu doy waar waaye waaye ñàkk jariñu. laay Pythagore wala lan la def. laay Pythagore bu roog énergie. waaw ah, lu waay doon jaay tey mu lamb. waaw pul bu rafet laay Pythagore. ñàkk eh, jariñu dóorante jaan oh, nanu ñàkk jariñu. daan na ñàkk jariñu. Ah, lan laar bi di wax daan na ñàkk jariñu. lan daan. daan na jariñu. non. dara leeragul ah parce que nag dafa mel ni njaax dafa feeñ waa lan moo xew fii et eh, lii gaaw na matul 10 secondes waa oh ñàkk jëriñu daan na ñàkk jëriñu ndeysaan xoolal photographe bi lim ma jëlal nii oh photographe bi kenn du moom xoolal ma photographe bi nag arbitre yi dañu teg Sunugal Soyez le premier à informer. Sport, société, actualité, politique, culturelle, reportage, interview. L'information à sa juste valeur. C'est